mbokk incha allah ñu ngi war a jël tey suratul ala sabbih isma rabbika al ala alhamdulillah والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñi ngi sant suñu borom subhanahu wa taala ñi nga xam ne moo ñuy wërsëgal ñuy dund ci chahru ramadan suñu borom dogal bis yi néew moo ca des donte ne ni boole nañ ci xéewal ñu daje cim néegam tiim ab téeréem di ko jàng ay ngëneel la yàlla na yàlla subhanahu wa taala defal ñu ko ngëneelu adduna ngëneelu alaxira kon incha allah ñu bàyyi ak xolin mu jëla ñu suñu mbir
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبالل أي سللل كمجل ستر بروم بجن كوي الذي خلق فسوى moom mi nga xam ne moo bind ca moo yemele wallazi qaddara fa hada moom mi nga xam ne moo dogal ca moo jubal wallazi axraja al mar'a ka nga xam ne moo génne la nga xam ne mooy xontub suuf fa ja'alahu ghusaan ahwa mu def ko mboog moo xam ne mboog mu ñuul lay doon sa nuqri'uka fala tansa dañ la jàngal ba doo fàtte illa ma sha allah xanaa lu dul dafa sob loo xam ne daa sob daa sob yàlla innahu ya'lamu al-jahra wa ma yaxfa yàlla moomu xam na la feeñ lañ biral waaye xam na it la nga xam ne daa nëbbu wa nuyassiruka lil yusra daañ la yombalal ci ak jëm ci yombal fa zakkir in nafaati zikra den waaraate su dee waara waaraate dana jëriñ sa yazakkaru man yaxsha dana waaru moos ka nga xam ne dafa dafa ragal yàlla wa yatajannabuha al ashqa dana du muy sori la nga xam ne mooy ka texee di moom dana sori loolu nga xam ne moom mooy waarate googi allazi yasla naar al kubra kooku nga xam ne ëllëg dees na ko tabbal ca sawara bu màgg ba thumma la yamuutu fiha wala yaxya gannaaw ba sawara fa du fa dund ci du fa dee qad aflaha man tazakka dëgg-dëgg texe ni ka sellal bakkanam ba wa zakara isma rabbihi fa salla mu tudd turu boroomam daal di julli bal tuksiruuna alxayaata dunya waaye la am kay da ngeen a gënale dunduk àdduna wal axiratu xayrun wa abaq wa abqa donte ne alaxira day moom moo gën ca moom mooy li sax inna hada la fi suxafi l ula lii day nekk na ca téere yu jëkk ya suxafi ibrahima wa muusa nekk na ca téere yi ibrahima ak muusa ñu ngi noonu mbokk saar bi bokk na ci saar yi gën a siiw ci alquran bokkoon na ci saar yi yonent bi alayhi salaam gënoon a bëgg bëggoo nit julit ñi di ko dégg lu bari aka neexoon julit ñi nañ koy déggee ñu mën koo comprendre noonu xam ko suñ yonent alayhi salatu wassalaam lu ci bari bu daan tëj ay naafilay guddeem daana jàng sabbi isma rabbika al aala def beneen rakka doo ko indi qul yaa ayyuhal kaafiroon doo ko tëjee qul walaw ahad gis nañu it lu bari woon daana ko tari ci juma lu bari woon daana ko tari ci iit mook saar bi nga xam ne moo ci topp di suratul ghashiya bal dañ ne léeg-léeg sax iit daana tombeeg juma ci julli iit gi mu tari ñaari saar yooyu ñu dajewaat ci jumaa ja mu tariwaat ñaari saar yooyu jubluwaay bi yépp moo nekkoon mu sax ci xolu jullit ñi lu jiitu suñu borom dafay wax jullit ñi ñu sabbal seen borom ca mooy moytu di ko bokkaaleeg dara moytu di ko jiiñ lenn lu jaaduwul borom boobu mooy ki gën a kawe lu mu mën a doon ci darajaam ya ak ci jëmmam ja mooy ki tiim ay mbindaafanam yonent bi alayhi salaam ne lii day def leen ko seeni sujuut jullit bu sujuutee dafay wax subhaana rabbiyal aala sell ñel na sama borom bi gën a kawe te gën a kawe boobu itamit lan lan koy wax sa làmmiñ sa xol da koo war a gëm ca mooy sa wayjur sa directeur général sa général d'armée sa président de la république ku kawe ci yow rek yàlla ko gën a kawe su ko defee ay ndigalam doo ko wecceeg ndigali kenn ay tereem doo ko wecceeg tere kenn borom boobu mooy ki bind commencé ci yow moo la bind ci coobareem à partir de zéro moo la bind yemele la may la ay loxo ki tànk ay bët def ci yow la ko neex borom boobu mooy ki dogal ca doomu aadama sa borom yàlla subhanahu wa taala mooy dogal lépp lu am ci àdduna waaye yow sa wàllu bopp yonent bi alayhi salaam nee na boo amee ñeenti weer sa biiru yaay yàlla day yónni malaaka jox ko ne ko kii day lii la war a dund lii mooy nar a nekk wërsëgam lii la nar a jëf ila axiri yooyu ay dogal la yu jullit war a gëm ne yàlla mooy dogal doonte ne ne na ngay gëme dogalu yàlla ngay gëme it responsabilité bi yàlla teg sa loxo gëmal ne yàllay wërsëgal waaye doo frenkulaay rek toog ne yàllay wërsëgal jeex na gëmal ne yàllay facc waaye doo toog rek ne yàllay faj jeex la fokk nga def si yow la nga man ca mooy sabab lu ji li ci des nga bàyyi ko ak yàlla borom boobu mooy ki jubal jubal mboole mi mbindaa fanam biddiw yi moo leen tracel fu ñuy jaar soo demee ci bàyyi may xar bi doo ko judd léegi nga di ko seetaan mu ne kalang kalang kalang kalang ba mujj rek mu dem uti ca weenu yaayam commencé namp kan moo ko xamal loolu suñ borom yàlla moo ko xamal loolu ñu ngi noonu soo jëloon fii ñaari doomi béy góor ak jigéen ñuy doog a judd tëj leen ci benn néeg balaa semaine nga gis ñu tëbante ku leen jàngal loolu kan moo jàngal picc yi ni ñu nar a jóge Europe di ñëw en Afrique traverse l'océan xamal leen ne kat lu ngeen mën a dunde mi ngi foofu suñu paree traverse ko delluwaat ku leen gindi ci loolu mbokk li lépp mooy suñu borom mi nga xam ne hëda moo jubal doomu aadama ak bàyyi may waaye it moo tëral aw yoon wu nit ñi war a jaar ba jub mi ngi noonu borom boobu moo génnee lépp loo xam ne suuf da koy meññi bépp gàncax suñu borom moo koy génne ci kattanam comme ni leen ko waxe woon keroog à chaque année àll bi ba demoon bi ngoo koŋ su taw bi ñuy façon ñax bu ne génn yàlla moo ko génne mu verte di rafet di nëf nëfi bu dee toolu dugub gerte nga mën a dugg ci biir lépp verte mais boo xoolee boo demee ba boori mois d'octobre da ngay gis ne lépp day mujj wow lépp lax lépp ñuul gannaaw ba nga xamee ni trois mois ci gannaaw lépp ngi verte taaru ànd ak ay fleuram ay tóor-tóoram lépp mujj ànd ñuul ku def loolu mooy suñu borom jëll waala borom boobu nag mooy xamal waa makka ni ki def lii moo wàcce alquran ci yonenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ñoo lay jàngal ba doo fàtte que yonent bi alayhi salaam da doon am problème lool ci di répété li jibril di wax suñu borom na ko jëru ko yow doo fàtte naa la jàngal doo fàtte ngi noonu xanaa lu dul lu sob yàlla te it alquran da ci am aaya yoo xam ni bi yonent biy dund dañ koy man suuxal aaya bu yàlla daan appliqué ba mujj mu dindi ko remplacé ko ak yeneen aaya mooy illa ma sha allah borom boobu mu ni moom li nit ñiy wax xam na ko lañ nëbb ci seen biir dënn ya xam na ko ca lool it ma ko suñu boroom sant ñu ñu jëf kese dañoo sant ñu jëf sant ñu ñu sellal jëf looloo tax ñaari nit daañ bokk lu ñu jëf kii yàlla mbugal ko kii yàlla fay ko ndax seen yéene yi safaanoo mi ngi noonu noonu mu xame yéene yi nag kon la ngay wax ci suuf waxi noppi ca loolu it bépp jullit bi julli gëm na ko yaa ngi gëm bi nga nekkee sa biir néeg yow rek jël sa jë teg sa sijaada naan subhaana rabbil aala gëm nga ne yàlla ngi lay dégg borom boobu nag subhaanahu wa taala mu ne yonent bi danaa la yombalal jëm ci yombal na am yàlla yombalal na ko yombal aw xeetam diine ji yàlla defu ci benn xat-xat xoolal la nga xamee ne mooy julli gi yeneen ci bàyyi sax mu ne boo mënee taxaw jullil boo munta taxaw toogal boo munta toog tëddal koor gaa ngi nii boo feebaree dogal boo tukkee dogal at màkk amoo wàcc na la zakkaat amoo wàcc na la ay diine ji lu yàlla subhanahu wa taala yombal la suñu borom subhanahu wa taala it ne yow yonent bi del fàttali su dee fàttali dana jëriñ ca mbokk julit fàttali am na solo lool waaye ku nekk war ngaa xool occasion ya ngay fàttali doomu aadama du nu la neex ngay waxe du fu la neex ngay waxe waaye képp koo bëgg a waar bëgg koo laay biir war ngaa xool ba gis occasion boo xam ne méngoo na nga dog koo wax ak moom am na koo xam ne boo ko waxee ci digg mbooloo mi moom ñàkk nga ko c'est fini dootu la déggal waaye boo demoon ba fekk mu wéet nga ñëw na ko ay diw nangam ak nangam sa borom yàlla kaza wa kaza su boobaa dana d'accord ak yow am na koo xam ne nii munta toléré xale wax ak moom waaye bu mag ñëwee wax ak moom dana dégg am na ci xale yoo xam ne nii jàpp nañ ni dépassé nañ mag ñi bokkuñu ay génération mais seen moroomu ndaw bu xam li ñu xam bokk ak ñoom jamono bu wax ak ñoom ñu dégg ala kulli xaal kon mbokk waaraati dañ cee war a xool ana fan lay jëriñi ñu daal di ko fay waar doonte ne nag loolu may nga xool fu mu gën a jëriñi waaye waaraati moom kenn du wax rek ne amul njëriñ dama koy bàyyi déedéet mu amit njuumte bu rëy boo xam ne sunu maam yi def nañ ko mbokk nga tiim juma juma ji am 2000 personnes masalan yow nga ñëw imam dóor leen seeni arab ñoom booy wax waxi mbugal ñu naan amin booy wax fa yàlla jaar ak firawna ñu naan amin loolee mbokk ay njuumte munta paase loolu nit ki boo koy waar da nga koy waar ci lu koy jëriñ su ko defee xutba bi dañ koo war a wax ñii nekk ci jumaa ji dégg ko loolu mooy la nga xam ne dëgg-dëgg mooy la ca jaagu borom bi nañ ne ko boo waaree day nit ñi daañ xaaj ki yàlla dogal mu ragal yàlla heure boo ko waaree dana jëriñu ca loolu it mi ngi noonu moo tax mbokk jullit di gëj ci place waaraate musiba la bari na suñuy doom yi nekkoon ci Sénégal di déglu ay waaraate bañ demee bitim réew daa di nekk ci gox yoo xam ne gisatuñu ku leen waar seen diine di dellu gannaaw di dellu gannaaw bañ mujj mel ne tubaab yi ñu fa fekk allahuma falillahi alhamd ña ca farlu ca ñoom moom ni ñuy toppee dars yi xew Sénégal waa Sénégal sax toppewuñ ko noonu laay gis nañ ci xam nañ ci ñoo xam ne amul benn dars yu ñuy def fii lu dul ne dara rëcc leen ci ñu bari ci ñoom foofu la sunna leeral seen bopp kon ala kulli xaal ngay xam ne waaraate day jëriñ yow mi waaraate waaraateel day jëriñ yow yu sa wa- yow mi déglu yit del déglu waaraate day jëriñ mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala nag ni ki yàlla dogal mu nar a texee di kooku moom bu déggee ngeen di waraate mu ne of mi ngi noonu am na ñoo xam ne seen temps xalaatuñ ci naan dañ ciy sacrifice une heure de temps di dem ca jàkka ji di déglu ay buxaari ni nag muslim ne nag kaza wa kaza pour ñoom amuñu jot googu loolu gëmuñu ko daañ ko sori loolu mbokk da ngay gis ne ay njuumte la donte ne bokk na njuumte yu ñuy askane sunu maam yi naan boo déggee fu ñuy tafsiril quran bu doon da ngaa sol dalli weñ na nga daw ba dalli ya xar mbokk loolu njuumte mun tapaase loolu téere bii nga xam ne suñu borom nee na fa ida qara'naahu fattabi qur'ana thumma inna alayna bayaana téere bi maa la koy jàngal gannaaw ba ñoo lay koy leeralal noo koy leerale nit ñi waaw yonent bi alei salaam leeral ko nit ñi ci arab njaago yi bu ñu amul ab njaago bu leen ko leeralal ci njaago ca li yàlla santoon arab yi loolu la sant njaago yi ndax loolu dina sotti laa du sotti kon la chaque ne fokk ñu leeral téere bi yàlla bi ca lang yi waa yàlla wàcc ci kaw suuf yépp loolu mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala nag ne ki nga xam ne nii dafa dum mooy wane gannaaw ku mel noonu day sawara lañ koy tàbbal yowmal qiyaama ca mbokk loolu la yàlla wax wa man yakfur bihi min al ahzab fa naaru mawiduhu ku weddi alquran safara la jëm juif la chrétien la mushrik arab la kum mën a doon képp ku dégg alquran weddi ko safara la jëm ca safara boobu bu fa duggee du dund du dee mbokk dee xéewal la xéewal la bu yàlla def ci àdduna doomu aadama bi lu sa xereñe xereñe nga xam ngeen am na lu ñu tuddee expert de la torture ay médecins yi ñuy formé ñu mën a téye doomu aadama di ko mbugal mbugal yu tar ca du teqali ko ak xelam waaye lu mu yàgg-yàgg day dee rek àdduna moom lu mbugal yi tar tar day dee lu médecins yi bëri bëri day dee mi ngi noonu am na àllaaxira nag suñu borom nee na déedéet du fa dee du fa dund du dund lu tax dee ngi koy jóge min kulli makaan waaye du dee ay yàlla du ko may mu dee du ko may mu teqali ko xelam waa sawara duñ teqali ko seen xel duñu dee mu ngi noonu borom boobu nag daal di wëlbatiku daal di ne texe ñeel na ka sellal bakkanam ka nga xam ne moom ba mu déggee waaraate ga da koo xool méngéel ca bakkanam ca it mbokk waaraate mooy seetu léeg-léeg bala ngaa gën taxaw ci kanamu seetu bi daal di defar fii defar fa heure boo déggee waaraate da ngay xam ne kii mën lay waxal bu ko defee sa comportement la ca dëppoog la yàlla lay wax ci téeréem nga sant ci yàlla ñaan ko mu saxal la lépp luñ cay wax ci défaut ca xam nga défaut bi kat mi ngi ci yow nga ñaan yàlla mu teqale la ak moom lépp luñ ciy digle ci defe goo ko nga ñaan yàlla nga def ko lii mooy tazakka sellal sa bakkan gannaaw ba nga tudd sa turu boroom ca mooy tudd yàlla mbokk julit loolu mooy motuuru julit julit ngalawaay xamal ne sa dund gi balaa rafet da ngay bañ a fàtte sa borom ko man ibn al qayyim rahimahullah daana wax ne julit day mi ngi mel ni jën ci ndox jën bu nekkee ci ndox dana nekk à l'aise boo ko génnee rek mu commencé suffoquer di fët fëti mu ne yow jullit xamal na sa géej mooy zikrullah jën nga woo xam ne sa géej mooy zikrullah taqoo nag di tudd sa borom foo mën a toll loolu tax seytaane sori la loolu tax sa bànneeku bakkan du la mën a not donte ne aaya bi wala ñaari aaya yi qad aflaha man tazakka wa zakkara isma rabbihi fasalla borom xam-xam yu bari dañ ci koy delloo ci zakatul fitri lii nga xam ne ci lañu jëm muy azakay muuru koor ca mooy texeñal na ki génn azaka muuru kooram tudd yàlla dem julli ji te xam ngeen yonent bi alei salaam daana wax ne azaka muuru koor day ku ko génne avant ngay julli ji azaka muuru koor lañ koy considéré nga xam ne mboolem njuumte yi nga amoon sa biir koor day koy effacer kii dem julli ji ba ñëw nag doo koo génne kooku moom ab sarax rek lañ koy considéré loolu kon ñu bàyyi ci xel ci wàllu googu borom bi nag daa jëne li ëpp ci nit ñi day dañoo jël àdduna gënale ko ci àllaaxira bal tusiruuna alxayaatu dunia ca mbokk suñu borom nee na àllaaxira day moo gën àdduna benn ca mooy gën a sax mooy rek moo sax yonent bi alei salaam nee na lu toll ak un mètre ci àjjana mooy place fi ñuy teg nee na ab yar moo ëpp valeur àdduna ak li ci biiram mi ngi noonu loolu mi ngi noonu yonent bi alayhi salaam misal nañu misaal boo xam ne extrême la kenn mënu ko passé nee na kenn ci yéen su bëggoon a méngale xiiwali àjjana ak mboolem xiiwali yàlla wàcc ci àdduna nee na da ngay dem géej nga jël sa baaraam samp ci géej gi nga sempi nee na li takk sa baaram ci ndox mooy méngóog mbooli mi xéewlu àdduna àjjana nag mooy géej ga ndax gaa yi nii lu ñuy méngale la déedéet mais da ngay gis li ëpp ci nit ñi kër kër bi ñuy jox àdduna seeni xalaat seen alal seen temps seen lépp kër kër àdduna rek ñu bëri faat julli yi seen yoon nekkul ci zakkaat war a aji màkk sa yoon newu ci war a dimbali say mbokk jullit sa yoon newu ci kër kër kër kër kër di dajale rek ca noos goo ci mën a am daa am fu mu yem bis bu dee jeex na am maa nag alaxira moom commencé ca alaxira mu amul fu mu yem suñu borom nag ne mi ngi noonu alaxira gën ca àjjana ca mooy la nga xam ne mooy sax borom bi nag ne lii nga xam ne moom laa leen wax moo ne day boo demoon ca tiire Muusa fekk ko fa am ñu jàpp ne sabbih isma rabbikal a'la bi yépp ñëw na ci tawraat ñëw na ci téere ibrahim donte ne lu bari ci mufassiru ne ñu ne la nga xam ne moo ci ñëw kay mooy li suñu borom yàlla subhanahu wa taala di wax bal tusiruuna alxayaata addunia wala axiratu xayrun wa baqa ay li ëpp ci nit ñi dañoo gën la àdduna ca àllaaxira moo gën ca mooy sax loolu suñu borom waxoon na ko xawmu ibrahim waxoon na ko xawmu musa ñu nit mu daal ñu koy wax mbokk lii mooy saar bi nga xam ne yonent bi bëggoon ne bépp jullit comprendre ko dund ko yàlla na yàlla yombal ko ci ñun